daan jël bu seen wit bam ben benn inshallah wa allah. bi dama delu ciosan rek parce que li séeréer bu ko gis dina xamné ne sen dafa dem keur mamam waaw ki bak bi. ku ko nekk séeréer dëgg di nga xam ni jogay jogay ne moo koy bàkk ñu ne yàlla kobale borom àll bi waaw loolu la dama dellu fu ma dëkk rek waaw ah, tubaab ñu bi na bari ah. waa c'est vrai ni euh, waa di jaale Ahmed Amar di euh, vraiment kilifa waaw xam nga société dem nekk fii ci vraiment ñu ngi koy jaale Amar Dieng ñaanal yàlla yërëb te xaar ñu ngi koy jaale Sénégal bi ñëpp vraiment su dee jaale ñëpp di ak moo jaay di leen yàlla xarra ajama ak président bon c'est vrai ni wàññi naa poids mais ñu bëri ñu xamul ne yàgg na ma yokk poids mais nag euh, sant yàlla bu baax combat moo ko laaj pare nañ ko lépp bi amul lenn lu ñu bàyyi pare nañ ko ñu ngi tàllal loxo Sénégal gi yëpp tàllal loxo kilifa diine yi ba nu mu fay kilifa aada yi ñu yokk ñaan parce que làmb moom defal li a def yëpp mais ndam yëpp yàlla suñu borom la mooy xool ku ko neex mu jox ko ko mm. ñu yàlla lu tax tey mu defal ñu roi des arènes mm. defuñu ko mais ñu koy sant yàlla parce que xëy na wala ñu jàpp ni yàlla dafa ko tuddoon ni dañ koy doon maa ngi ñaan yàlla nag mu yàgg fii te tam aussi lépp lu ma mën lépp lu ma xam dinaa ko def pour roi des arènes incha des Pikine ma téye ko sumay raal yow sa lay yàgg si ndox day law ba muy law te ba seen moto da lay xool jox baa corriger sa bopp corriger sa bopp ci loolu bu <laughs> waaw rendez-vous la 28 ak jàmbaar jaajëf Lil Boy ñaari wax bu jeexee rek jeex na. wutul waa Fimela ak waa. maa ngi woo nag aussi maa ngi woo waa Fimela di wax Pikine. jour ji dama bëgg ñu fees stade l'obligation saf saf laa bëgg. incha allah yëngal ci kaw may bon ma koy tàngal ci suuf ñaar bu jeex. gis nga tey li ngay wax ak la presse gis nga bu boobaa tamit su doon yooyu confirmé tey jii seen liggéey li parce que kii boobu euh, mbooloo mi day bëri mm. waaw tey boo xoolee jàmbaar li ñuy wax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. Mm. bu boolewul warut a tàkkalee. Mm. tey ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi zéro violence dañuy ñaan ba ka tey waa parcelle am nañ mbokk Pikine waa Pikine am nañ ay mbokk parcelle te bu ñu dajee ci xew rek ku ci nekk ñu wax la sa morom nga bokk da ngay xam ne amul solo bugguñu kenn am fa benn blessure nañ ko def ci fair play Modou Lo suma rakk la du dëgg lamb la rek moo ñu boole ay xale lañu dañ ci toll di koy def ëllëg tamit aussi ñuy ànd suñu doom mën nañ takkante wala mën nañ mën nañ ci mais làmb nag làmb dafa war a saf sàpp du dëgg voilà loolu la mais zéro violence Eumeu Sène ko xam xam ne ni ci jàmm rek lay dox man soo bët yi ay bëti garmi la du ma xool lu ñaaw sama noppi bëgguma ci dégg lu ñaaw sama laamiñ bi bëgguma ci génnee lu ñaaw parce que àdduna amul solo nit nit rek ngay doon mënoo weesu nit maa ngi loxo nag Sénégal gi yëpp di ko ñaanal jàmm di ñaan yàlla suñu bopp kaddu gu mujj rek mooy Sénégal yàlla fi jàmm yàgg. di woo Pikine yëpp encouragé Ama Baldé maa ngi koy ñaanal moom combat suma ko xam affaire yaa ngi ñëw day baax ñu koy wax ñun américain noo pen noo gain. day baax incha allah balaa moo ne foofu mu métti. day baax day baax di nuyu sama mag Pape Ngom. waaw di nuyu Sénégal yëpp. waa Sénégal yëpp maa ngi Joola. xam nga ñëpp lim da ngay juum. suma coach. maa ngi koy nuyu. gars jaa ngi jëf waay yàlla Sénégal yëpp.